Leewtoo ñu ngi leen tey ñu ngi fii ci SDM Iba Mar Diop ku fi organisé nag kenn du leen ko wax mooy le promoteur de la jeunesse di Sambay production moo fi indi ay combat yu rëy diggante Aliou Diop bu Lamsar ak ki nga xam ne moom mooy euh, Njaaxum boobu combat nag duñ ci wax dañuy xaar rek yàgg maar gis nga fu ñu taxaw fii mooy stadium Iba Mar Diop ñu ngi ci bunt bi policiers yi di def seen liggéey amateurs yi di dugg nañu toppalante ba ci biir xool li ñu sàmbay indi juste la booy bawol commencé di ñëw waaye loo ci man mënti dégg gis nga booy bawol a ngi noonu. Leewtoo TV naa la waaw mais booy bawol. waaw combat bi lii moo gënoon a yomb si li ma ko nar a def. Uh-huh. waaw dafa ko quoi. Uh-huh. waaw dafa bëri woon wax ko combat bi ñëw mu yooru yàpp ay supporters am. waaw mais mais de la waaxu. ma reculer bàyyi ko xëj ko fax ko mu mu def kaat abi. <laughs> Père Zalo ak Père Ibou Diop ak Zal Thiaw. waaw ah, jaay booy bawal a ngoog mbokki ñu toppante ba ci biir yéen suivre ci internet bi arbitre sifflé na diggante Thiatou Mbomboy ak Tafa Ndiane numéro 2 bu Cheikh Mbamba attention Tafa Tafa door na attention Tafa door na caat bañ na caat moo nu fete ndeyjoor Tafa moo ñu fete càmmoñ Tafa door na attention ah, daan nañu caat waay arbitre baa ngi ñoom <laughs> internet école de lutte Cheikh Mbamba Abdou Gueye écurie Balde Abdou am na benn avertissement daa am lu mu def adversaire am to combat bi demagul arbitre nee leen ndax pare ngeen juge yi kay kromene beneen pare na internet pare na Abdou Gueye pare na arbitre sifflé na deuxième combat de la soirée internet mooñ fete sunu càmmoñ Abdou Gueye suñu ndeyjoor Abdou Gueye moom ëf na ñaari loxo ya jëmale ci internet internet moo nu wen ginnaaw ngemboo ngembalu weex li am li ci xonq waaye Abdou Gueye moo ngemboo ngembalu xonq li internet moo ñu won ginnaaw internet ak Abdou attention Abdou Gueye mu ngi jiital tànku càmmoñ bi internet jiital tànku ndeyjoor internet mooy rakku dégol bu ngoy waa ngoy Alioune Sylla Babacar ñooñu sarewunu la mbokki Leewtoo attention Abdou Gueye door na waaye dalul Abdou Gueye door na waaye dalul internet me deuxième avertissement Abdou Gueye bu Falaye Baldé internet bu Cheikh Bamba at bi sifle na Abdou Gueye moo fete sunu ndeyjoor internet seete sunu càmmoñ internet Abdou Gueye ki ware Falaye Baldé Bamba internet internet Abdou Gueye Abdou Gueye moo na fete ndeyjoor internet fetu ñu càmmoñ internet Cheikh Bamba Abdou Gueye Fallay Balde Pikine la ware internet ware cangoy Aline Si la raku degol bu ngoy la raxasoo suuf si attention internet mu ngi dox ci kawam Abdou Gueye mu ngi mel ni luy arrière mbaa bu génnaatee du am ñeenteel avertissement aha déplacé wu na latéralement attention internet jël na tànk ba daa dem yi koy doori internet jël tànk ah internet Abdou Gueye Abdou Gueye daan na internet internet daan na Abdou Gueye di moins ngeen baal ma internet internet daan na Abdou Gueye oh. waaw maa ngi sa boy bi li mu bëre léegi. waaw xam nga coono moom entraînement moom boo ko entraîné moom chaque jour yàlla lay fay waaw maa rek mooy fay ndax doon moom mu kaawute waaye nag entraînement moo ko fa téye. waaw door bi dafa mel ni dem na ba xaw a. waaw kon xam nga ne entraînement moo ko fa téye. te teewul dafa jàpp ba rek mooy lépp lépp entraînement sëriñ am na de waaye entraînement mooy premier bi waaw. waaw lan mooy secret waa Falaye Baldé. mun bëre rek mooy seen secret waaw. booy bi fu mu jëm. booy bi ah si mag ñi comme léegi xale mu ndaw daan ñu naan ko war nga laal si mag ñi ah moo ko si mag ñi la bëgg rek ku daan si mag ñi nga bëgg rek. kan moo ne eh, kanamu Ama Balde kan kan la war a kan lañ ko war a jox. waaye Gris Bordeaux Gris Bordeaux war na bëre Ama. waaw Fass dugg naa fa ñaari Fass dama ko da jaxe. Gris des mu jël wàllam si xiir bi. dugg nga Fass ñaari yoon da bëgg a dugal ëpp na ñaari yoon de. naa fa ñaari yoon. Ah. Ama dugg ñetti yoon. waaw waaw Gris Bordeaux ñoom muy ñeent. xiir bi la koy dal bu deewee sa xiir la koy topp si bàmmeel bi. ki a Balde ngi noonu moo ko wax nee xiir bi daal da koy dal. waaye loo ci mënti dégg mbokki Leewtoo attention Laye Zarko sànni na Hercule daw na yëngatu moom Hercule woon woon ginnaaw Laye Zarko jàkkaarloo ngun la ah, Hercule door na ko Laye Zarko door na Laye Zarko Hercule Laye Zarko moo jàkkaarloog nun Hercule moonu woon ginnaaw attention Laye Zarko sànni na moo bokk Grand Yoff waaye Hercule Grand Médine la bokk moom tam kenn ku ne yaa ngi jiital tànk càmmoñ ñu ngi lewoto arbitre nee na taxawal lan moo xew ndeysaan loolu glace la arbitre sifflé na Laye Zarko Grand Yoff Mbolo Hercule Grand Médine Laye ko moon won ndeyjoor attention Laye Zarko sànni na Hercule maîtrisé na ko Laye Zarko mais Hercule Laye Zarko ak Hercule moo ki lewtoo attention Hercule sànni na Laye Zarko sañ ko ci suuf jàppante nanu jàppante nanu amaguñu ngemb amaguñu ngemb Laye Zarko door na ci suuf Hercule téye na Hercule tey na loxo bi Laye Zarko soxor na ci bi suuf attention Laye dafa bëgg a jàpp Laye Zarko dafa bëgg a jàpp Hercule jàpp na Laye Zarko jàppagul ah laaya ngay wut jàpp Hercule bàyyi na jàppaat na ca géeño ya Hercule jàpp na ca géeño ya ah Laye Zarko door na Hercule xaw sigi ah Hercule am na ngemb ah, Alaye Zarko lu muy def nii ah Hercule door na ko dooraat ko attention ba dara du ah Hercule daan na Alaye ko Hercule daan na Alaye Zarko hey Hercule am na lu mu doon def ci tànk ba xaw ma lan la ndeysaan <laughs> assurance ngi noonu di ñu romb Wagdumaar xale boobu. waaw mais dañ laa gëj gi gis. waaw nekk ci di préparé rek am na amoon naa si lu mu jógee ci mois de mars bi xam ci am ci lu ma war a dellu. waa ñu ngi waajaat ak suñu mbokk bu baax a baax. waaw mais kan moo nekk ci sa kanam. waaw ñu nekk sama kanam bëri na na chaque jour ñu ngi may di ma waxi combat mais xam naa daal lu gën a wóor daal mooy déwén laa war a bëre ci kattanu suñ ci kattanu yàlla te su ma ñëwaatee di xam ne Alioune Sèye Junior ñëwaat na incha allah rabi jaajëf. Alioune Sèye Junior mbokki Leewtoo magam lu ñuy wax mbokk nee koy jur ama jàng taxaw moog ñoom Yoro Dia ñëpp dëgg la ku ko gis la xam ne am na lu mu def ci lamb waaye lamb dafay am ay tolluwaay gis nga noonu noonu la demee lamb moom ku ne xam na lamb moom dafa tëradi waaw ñi nga war a daan da leen daan ñi ñi la war a daan da leen daan mais daal ci gàttal mooy su ma ñëwaatee di ngeen xam ne Alioune Sèye Junior ñëwaat na ànd ak ay mbokkam bu baax a baax yéen a ci dëgg bu ñëwaatee indi leneen kooku Alioune Sèye arbitre sifle na quatrième combat de la soirée Kalidou Lansar la bokk booy maalaw écrit yombal Kalidou moo feete sunu càmmoñ booy maalaw moo feete suñu ndeyjoor ñu ngi lewoto ñu ngi lewoto Kalidou ak booy maalaw Kalidou booy maalaw ba seetloo booy maalaw mu xaw tuuti attention booy maalaw mépp na Kalidou maalaw Kalidou Lansar booy maalaw yëmbal attention Kalidou sànni na waaye dalul waaye maalaw méb na ndeysaan ñu ngi déplacé wu nanu dagg nañu leewtoo bi ñu ngi leewtoo ñaari xale yi Kalidou Boy Malaw journée organisée par Sambay Production juin 2019 fii ci stade Iba Mar Diop Kalidou Boy Malaw Boy Malaw Boy fayu Kalidou door na bu dal Boy Malaw fayu na attention dafa mel ni Kalidou mu ngi jiital tànk ndeyjoor Boy Malaw jiital tànk càmmoñ Boy Malaw écurie Yeumbeul attention yi sànni na moom Boy Malaw Kalidou maîtrisé na ko boobu dalul sànniwaat na Boy Malaw sànni na Kalidou Boy Malaw arbitre sifflé na wax nak ñoom Kalidou moo nu woon ginnaaw Boy Malaw moo jàkkaarloog nun wala fete ndeyjoor Boy Malaw sànni na yëmbal la waare Kalidou Lamsar jàppante nañu loxo Boy Malaw sànni na sànni waat na Kalidou fayu na xeex attention ñu ngay xeex attention mbaa door mu daanu du am ah boy maalaw kalidu boy maalaw boy maalaw door na ci kaw kalidu song na hypercule yi daluñu ah yooyu hypercule bu dale mbaa dina baax boy maalaw kalidu ñu ngay xeex ñu ngay xeex ah ah, ah. boy maalaw daan na kalidu Boy Malaw daan na Kalidou ah attention attention Kalidou mu ngay naaj ah, ah. assurance nee nañu juge yi ndax pare nga ñu ne assurance ndax pare nga waaw Badou Fall pare nga mu ne waaw arbitre sifflé assurance bu Ngunjaan moo féete suñu ndeyjoor Badou ni numéro 2 bu Thiaroye sur Mer féete suñu càmmoñ assurance bu Ngunjaan moo ñu féete suñu ndeyjoor Badou Fall numéro 2 bu Thiaroye moo ñu féete càmmoñ assurance ak Badou Fall seen xeex bi metti na assurance dem na ardo ñaari yoon attention assurance door na gauche bu dal ah Badou Fall na assurance doorat na assurance ak Badou assurance ak Badou Fall ñaari xale yi ñu ngi xeex ñu ngi doorante lewto bi bareetul attention ñaari xale yaa ngi bëre assurance door na Badou Fall assurance ak Badou Fall numéro 2 attention jàppante nañ loxo doorante a ah, assurance sànni na droite waaye dalul Badou ak assurance assurance bu Ngunjaan doorante nanu mook Badou Fall bu Caaroy Badou sàcc na benn ndeysaan at bi sifle Sar Njaaxum école di école de Cheikh Mbamba Njaaxum Aliou Diop Lamsar attention njaaxum meb waaye demul ah Aliou Diop xeex na moom ca kaw Senghor yaa ngay wadd Senghor njaaxum wadd na ñu ngi lewatoo ñaari xale yi ah ils sont toujours confiants kenn ku ne da nga ànd ak confiance serein ca ngay def ñu ngi lewato ñu ngi lewato eh arbitre atte na leen ma njaaxum moon woon ginnaaw feete suñu ndedoor waaye Aline Diop de feete suñu kanam attention njaaxum door na njaaxum ak Aliou Diop combat ba kenn ku ne am nga ay avertissement Alioune Diop cokkaas na ndeysaan ndeysaan njaaxum Aliou Diop ah njaaxum door na attention ah Aliou Diop fayu na ñu ngay xeex ca kaw Aliou Diop ba ngay déplacé a latéralement ah Aliou sànni na attention ñaari mbër yi ñemente nañu ñoo ngay xeex ca kaw Aliou Diop ba ngay sànni mais loolu dafa mel ni ay coup perdu la moo ñu wen ginnaaw moom Aliou Diop lam saar door na ay percure bu dalul njaaxum a ah, njaaxum meb na sànni na benn moom tam njaaxum Aliou Diop attention njaaxum door na Yakhum door na taxaw nañu jàppante loxo ca kaw jegante nañu ñaari mbër ñu ngi déplacé wu ah ah yaa ngi yuuxu lu xew dañu kontaanul combat bee yàgg te jël amagul Aliou Diop do Ndiakhoum door na eh Ndiakhoum fatal na Aliou Diop fayu na ah ah Ndiakhoum dafa yooru dem ay Aliou Diop da ko capté Eh, Aliou Diop bu saar njaaxum Cheikh Mbamba jàppante nañu kenn ku ne am nga ngemb ca loxo comme d'habitude njaaxum a ngi koy xëcc njaaxum xëcc na léegi mel ni ku koy faqat waaye Aliou Diop ñëwul njaaxum moo ñu woon ginnaaw Aliou Diop a ñun njaaxum Aliou Diop Ndiakhoum Aliou Diop attention ala Ndiakhoum daan na Aliou Diop Ndiakhoum plaqué na Aliou Diop daan na ko eh Ndiakhoum da ko taf plaqué ko daan ko Ndiakhoum daan na Aliou Diop mbokki Leewtoo yéen a ko gisandoo Ndiakhoum daan na Aliou Diop numéro 2 jël bu set bi waaye lamb ngi noonu Aliou Diop il n'a pas démérité gis ngeen combat yi fi jar Sambay production lii la indi woon ma ànd ak yàgg maar ci caméra bi waaye nuyu mbokk Leewtoo yëpp waaye rawatina ñi nga xam ne ñoom ñooy équipe bi ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo ñuy suivre kon lii lañ leen doon ci stade bi Iba Mar Diop Modou Mbaye Touré Bosta jërë ngeen ba beneen yoon incha allah